barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ci turu sëriñ Muntaqa ayadahu allahu wa nasarahu wa makkana tey jottali yi ci ndigalam ñu ndokkeel ñëpp ci gangu ñu gi di weeru ramadan ñu tàmbali ci ci guddi gi tey wax ne sant yàlla war nañu ci fekke gi ak tal gi te ñaan ko mu may nu ci tawfiq ci dundal ko ni ñu ko bëggee ndax lu ko ñor la ba mu wax ne kullu amali aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi jëpp jëfi doomu aadama moo ko moom ba des woor moom maa ko moom te maa ci faye waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam junj na ne am na lu mën a tax woorkat bi ba nga dajee pay bu yàlla googu lim doon kilifa lim doon nar lépp dem ci ñaan te loolu yomb lool ci jullit ñi ñi ci ëpp dëkk ci ci koor ak lu dul caaxaan ak jëf-jëfi caaxaan nee na man lam yada qawla zuuri wal amala bih fa laysa lillahi fi an yadaa taamahu wa sharaabahu ni biir bi du ci des moo xam bët la wala tànk wala nopp wala làmmiñ wala leneen lu mën di doon ñooñ wala war a woor amsik anil nawari lil xaraami wal mashi wal sam'i maa al kalaami wa kulli fikratin radiatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulma fa sawmu an yasuuma kullu admi عن كل ما يفضي فتى لسهوه bu dab jege it bul yàkkamti di dab te léeru ko ne jant bi sono te bu soo itam mu jëfandiku lu yam ba du mel ne bàyyi na ci ñàkk a jot koy koor tere ko sax ci lekk ak naan ndax bàyyi na li baaxoo lekk ko ci guddeeg bëccëg bu yàgg yàgg ba mu jéem koo def ci guddi moom xamut loolu woorkat yu bari nag dañuy jéem loolu te ku baax ki tere woon nañu loolu wax nañ wala tukathiru suxuura wal futuur waqta siyaamikum fa tuhramu al fa tuhramu al إذ كل من ملأ بطنه طعام وأكثر الشرب عليه والمنام فإنه مع البهيمة استوى وفاته خير كثير كثير وتوى sëriñ baa ngi gërëm taalibe yi ci li weesu di leen soññ ci li ci kanam ci teral weer yi ci jaamu yàlla ci xiif ak mar ak julli ay rakka waaye ci jaamu yàlla yëpp ci dimbale jaamu ñu néew doole ak ci sàmmanteeg colin yi mu bëgg ku ne di solo noonu ak foo mën ne ak di jëflante ci suñu biir ñu gën a rafete te bëgg ko ne mu ngi ñaan yàlla may pas-pas bu wér ak wér gu mat ban mën a rafetal jëfu li mu ci digal te man ko booleeg sori lim na ci tere te jéem a sax ak jëfe ndigal bàyyi tere gannaaw koor gi loolu sax mooy tegtale ne sunu koor yàlla nangu na ko ci gàttal lii laa andi ci turam te ñaan yàlla guddal fanam te wéral ko ba mu eggale yéen ci diine jéeg ci réew mi te mu ànd koog kilifa yoon bi te yàlla na yàlla defal loolu yeneen kilifay diine yëpp te jubal te jubale kilifay aada yi réew yëpp lu ci dëng wala mu yées ci man la waaye moom lu jub lu mat la bëggoon ma wax ko man it moom laa yéen woon maa ngi ciy jéggulu bu baax ak ci laneen lu mu ngi doon lu ma war a jéggulu lu ma yëg ak lu ma yëgul ak ki jéggalal ku mën di doon xaduma al ahdu bil xatai am xadas moo xam ne duñ tari yàgg na wala yàggul niñ ko waxe intadir an al xatai taala zamanu am qasur jiite moom jéglu rek moo gën a wóor moo xam yàgg na wala yàggul maa ngi jégal ñëpp yàlla na yàlla boole jégal déwénati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu